toute, toute l'actualité à temps réel, à Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. bien-être du corps nag dafa nekk benn entreprise boo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu wérgu yaram di faj lépp loo xamante ne problème gynécologique la maanaam lépp loo xamante ne dafa nekk ci appareil génital jigéen mën koo yàkkal mu mën a am doom li ci jëm ci wàllu infection yi jëm ci wàllu odeur vaginale li ñuy tuddee maladie pelvienne mooy kyste fibromyome endométriose yooyu yëpp ñuy gis ne ak trompe bouchée dafay nekk loo xamante ne day gàllankoor jigéen mën koo yàq ci ci néegu sëyam mu mën koo tere ab doom kon nag ñun entreprise entreprise bien-être du corps dañ fee nekk ngir nekkal fi jigéen ñi di leen di accompagner di leen di defal des traitements ci benn durée boo xamante ne entre trois ak quatre mois la pour ñu mën a am doom ñi nga xam ne aussi amuñu doom nekk ay ndaw ay xale yu jigéen ñoom itam ci feebar yooyu itam da leen di dal dañ leen di accompagner defal leen des mesures de prévention avec aussi des traitements su ñu jógee ci loolu dañoo nekk beneen partie boo xam ne dañuy faj góor ñi góor ñi nga xamante ne seen maaniw dafa wàññeeku maanaam li ñuy tuddee ci tubaab problème fertilité chez moom moo nekkoon d'ailleurs thème bi nga xamante ne moom la ñu développé tey ci vendredi 11 novembre 2022 fii ci place du souvenir africain ci 10 heures jàpp midi moom lañu ñu exposé ak suñuy suñuy clients suñuy parents suñuy xale ak ñëpp ñi nga xamante ne ñëwoon nañ fi des suñ fa jógee itam dañuy def lépp loo xamante ne problème poids la ñamte xam te dañoo am poids bëgg a wàññi dégraisser parce que poids bu bëri la ñuy tuddee obésité su la dalee dalay gàllankoor ci lu bëri mën na la jural jabet hypertension yi du ñëw problème cancer yi et donc dañoo am ay traitement xam ne c'est spécifique pour loolu mën la dégraisser nga mën am état de forme bu nice comme ça ñu mën a éviter yenn feebar yi ñi nga xamante ne itam dañoo jóge ci feebar ñu soxlawaat manque appétit du ñu mën a nelaw ñooñu tam am nañ seeni traitement fii ci bien-être bi comme ni ñu ko waxee lépp ce sont des produits à base de plantes naturelles ñi nga xam dañoo amee sciatique nerf sciatique arthrose rhumatisme bien du corps tam fii la leen nekkal loolu mooy suñu entreprise bi ñi ngi fi bés bu nekk lundi ba samedi deux voies liberté 6 en face camp waaw comme ni nga ko laajee rek ci question bi dinaa ci sawar a tontu góor ñi nga xamante ne seen maaniw dafa oyof maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne dañ koo constaté lu bëri ci jamono ji ñu nekk ndax da ngay gis ci néegu say jigéen ñu bëri ñoom la ñu gën a traité mais da ngay leen di traité defal leen ay bilan nga xam ne ku jigéen kii kat quatre vingt pour cent yëpp xam nañ ne nekkul ci moom kon nu ñuy def dañ leen di ne andil leen ñu seeni borom kër ñu mën leen defal traitement bac fertilité couple bi wala moom ci ku góor ki ñu defal ko traitement bu ñuy tuddee fertilité pour homme lii tax nag mànniwu góor oyof bokk na ci stress bu bari bi parce que léegi ak jamono ji surtout suñu dëkk bi ñu ne liggéey bu métti bi pression sociale bi jamono métti na loolu yëpp day wàññi kàttanu góor mooy li ñuy tuddee ci ci ci ci français da koy def faiblesse sexuelle su day dem sa ba ay fatigue bi yenn feebar yi di ko yomb parce que su fekkee ko xamante ne aussi du pratique yenn activité physique yi dem liggéey ñëw tëdd te comprendre nañ lépp day sonn mais na loolu yëpp am nañ des traitements contre la fatigue le stress lépp loo xamante ne day bloquer góor mànniwam di oyof dañ koy jàppale parce que loolu du loo xamante ne mënut a wër feebar boo xamante ne dañ koy faj la parce que durée de traitement rek la luy dab nit la c'est parce que dafa dund lii wala lee ci ñaareelu question bi mooy li mën a tax ki itam jigéen du mën a am doom voilà infertilité chez la femme loolu itam li koy waral bokk na ci infection vaginale yu ñuy wax avancée yi parce que infection vaginale nan lañ koy wax mooy ku jigéen ki partie intime maanaam kanamam da ngay jékki-jékki muy génne maanaam mel ni luy lakk muy xasan léeg lu ñuy tuddee perte blanche yi de gën a bari ci moom di génn même période yu mu war am muy génn di am benn odeur yooyu yëpp signe d'infection la moo tax soo demee di sentir loolu sa kanam da nga war a teel a jóg ñun dañuy def li nga xamante ne ay test d'infection la ñuy maye comme ça ñu xam sa état infection nga mën koo def parce que tant que mi ngi avancé ci yow rek dalay lay gën a gàllankoor day dem ba yéeg ma dem mën na dem ba boucher say trompe maanaam butitu njurukaay yi da koy téye ko dem itam ba su waree gis mbaax da ngay gis muy tëbal wala mbaax du ñëwati di tuur mu absent leneen li koy andi mooy li ñuy tuddee les maladies pelviennes maanaam kyste yi fibromyome endométriose muy loo xamante ne jamono ji dafa bari bari bari jigéen ñu bari loolu la ñu moo leen di gàllan mënatuñoo am doom ndax kyste yeeg fibrome bi danga gis koo xamante da koy am ba mu nekkee ndaw muy avance parce que kyste tamit nañu xamante dëgg bépp jigéen buñ ko xoolal dañuy gis ay traces donc traces yooyu tant que ñu ngi commencé di ko détecter rek da ngay gaaw a jóg dem parce que lu ñuy faj la ñu teel la koo dindil même ñun jarul ngay def opération dañ lay defal traitement bu normal nga naan ko mu dañ kyste bi day seey wàcc carrément nga continuer waat sa vie normalement tromp bouchée tam gis nañ ne bari na maanaam te trompe jigéen bu trompe am kooku du mën a du mën a am doom mooy mooy mu ngoog ci bu dundukaay ñaar yi nekk fii voilà moom mooy alimente ovaire bi comme ça mu mën a libérer sang bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee mbaax ci jigéen. beneen question bi mooy traitement yi ñuy proposer pour infertilité ci jigéen ak ci góor maanaam ci mànniwu góor bu oyof traitement yi ñuy utiliser nag mooy li ñuy tuddee thé fertilité pour homme maanaam ñun suñuy lépp bio la benn thé lañ koy jox. thé bi nag dañ koy utiliser de trois à six mois la sa dépend ci ku góor ki lu muy souffrir comme ni ma la ko waxee mën na doon faiblesse sexuelle mën na doon éjaculation précoce voilà mën na nekk lu duy yëgati boppam lu bari loolu yëpp bu mu ci mën a nekk am na traitement wam durée bu muy nekk traitement boobu la ñuy tuddee thé fertilité pour homme moom la ñuy proposer ku góor ki mu koy naan paquet bu nekk dix sachet les sachet bu nekk ñetti yoon la koy utiliser euh, bu nekk ñetti yoon. soo ko calculer benn sachet bu nekk infusion la koy def maanaam ci bouteille la koy def sous forme de tisane bouteille boobu un litre cinquante moom lay naan ci diiru ñett fan su jeexee mu sotti jëlaat beneen ba weer bi dee su jeexee automatiquement dafa war a renouveler ñu topp ko en même temps dinañ ko defal contrôle maanaam bilan bilan de santé yu ñuy def xool moom ci kàttanam ndax mi ngi ñëw évolution mi ngi yëg boppam et tout su dee ci ku jigéen ki traitement yi mooy lu ñuy tuddee thé fertilité pour femme maanaam thé boobu de day day gën a raxasaat butitu njurukaam raxas biir bi yépp libeere ko lépp lu koy bloqué ñu accompagner ko thé maanaam ovule lañ koy accompagner ovule détox vaginal ovule bi ci kanamam la koy def lépp luy infection ci kanamam da koy wàccee li mu naantee bi libéré biir bi ovule bi libéré appareil génital xas ko ba mu set incha allah traitement bi tam c'est de trois à quatre mois noonu lañ leen di suivre. day wër duy tane de day wër carrément. ñun suñuy traitement jigéen bu ko jël wala ko góor kuy suivre suñuy traitement am nañ ci ay témoignages yu bëri jigéen ñu bëri suñu gisee vidéo dinañ ci témoigner dinañ ko suivre normalement chaque jour ñuy jël traitement comme niñ leen ko waxee dañuy wër carrément am nañ aussi appareil laser appareil laser bi pour ñi nga xamante ne seen kyste dafa rëy trop trop appareil bi la ñuy jël mayaale ko ñaari traitement Euh, simple mooy tee bi ak ovule bi ñu boole ko ak appareil laser bi appareil bi da takk ci biiram bi chaque suba ak guddi rek da taal mu mel ni luy luy tàngal biir bi machine buy daw da koy seeyal ba mu wat yooyu yëpp ay traitement la ci feebar yi nga xamante ne dañuy gàllankoor jigéen pour mu mën a jël ëmb beneen question bi mooy pendant les règles lan lañ mën a éviter ba mën a jël infection comme niñ ko waxee sànq rek ci conférence bi Euh, infection la plupart du temps jigéen ñu bëri après suñu gisee mbaax lañ koy jël parce que soo gisee mbaax ba pare day am lu ñuy tuddee ay cellules mortes luy des ci suufam noonu loolu yëpp su fekkee ne nag du raxas kanamam comme ni mu se doit raxas ko ba mu set ci diiru yi muy gis mbaax itam muy utiliser ay serviettes di ko suy maanaam su defee ñeenti waxtu mu changé waat raxas ko kanamam fomp ko bam mu wow mu utiliser waat beneen serviette door dem donc hygiène boobu moom la ñu war di tenir pendant les rek sinon saa yu pare rek soo gisee mbaax ba pare cellule morte yooyu dañuy boole jaxasoog bactérie indi la lu ñuy tuddee infection vaginale loolu yëpp mën nañ ko éviter di changer ay dessous et di di suñu fóotee suñuy suñuy dessous di leen di weer ci naaj bi voilà di uti di changer aussi di wut yoo xamante ne c'est en coton ñu koy utiliser loolu yëpp dañuy éviter yenn infection yi surtout suñu di ko paase mu ngoog waaye laa su fekkee danga am yenn liggéey doo teel a wàcc wala nga dem jàng di guddee nga koy weer foo xamante ne tàng na comme ça bactéries yi mën a éviter di dugg di la créer ay infection beneen question bi mooy Euh, gel yu ñuy utiliser ndax day gaañ maanaam li ñuy tuddee kanamu jigéen effectivement ndax jigéen ñi léegi gis nañ ne lu ñuy utiliser gel dafa bari yenn savon ak ak parfum yi lu ñu gis rek ñëw raxasee ko seen <laughs> kanam loolu yëpp mu ngoog mooy loolu yëpp ñuy seetlu lool dañuy dañuy foog ne dañuy dañuy protéger wu voilà pour muy xeeñ lu neex di am senteur gis nga di def yoo xamante ne kenn xamul lu te loolu yëpp c'est vrai pour séduction la ci jonge la bokk waaye nag ñoo ngi gaañ suñu bopp parce que am na yenn produit yoo xamante ne suñ bi euh, maanaam appareil génital jigéen kanamu jigéen daa am ay bactéries yoo xamante ne ñoom ñoo koy protéger léegi bactéries yooyu nag soo leen di rey plus ngay utiliser gel yooyu yenn savon yi nga koy da ngay rey bactéries yooyu kon yow doo amati lu la protéger contre dara su du la mën a dal loolu yëpp soo ko reyee ba mu dee nag dangay ngay exposé wu nga foog ne da ngay raxas da ngay setal da ngay neexal boobu yëpp da ngay gaañ sa bopp maanaam parce que jigéen boo xamante ne duy tooy des fois suy yëg boppam kon loolu ça pose problème day wàññi maanaam désiram te pour mu mën a yëg boppam normal su nekkee en intimité war a sekk jëkkëram wala partenaire am loolu yëpp da wàññi te produit yi ñuy utiliser lu bari day rey loolu li muy indi li ñuy tuddee sécheresse vaginale da ngay di jigéen bu dem cinq deux ans de mariage à peine mu commencé di la naan du tooy te loolu yëpp moo koy andi nañu éviter bu baax yàlla lu mu def rek am na lu tax muy perte blanche seen normal muy nekk ci jigéen jigéen bu yëg boppam di tooy itam seen normal jigéen bu dem ba tooyatul it day wàññi maanaam bëgg-bëggam ci activité da koy gàllankoor ko ci lu bari kon nañu éviter yooyu parce que fii Sénégal lay wax en particulier lépp loo xamante ne dafa bokk ci wàllu jigéen ak góor maanaam seen intimité duñ koy waxtaanee waajur yi aussi ñoo ngi leen di lancer appel ñuy waxtaan seeni doom mu ngoog daw fuite de responsabilité ku jigéen nga am nga doom day koy wax hygiène na mu commencé gis mbaax di commencé nekk di développer yaramam ne ko nii nga war di defee ne nii ngay raxasee sa sa kanam nii ngay sangoo nii ngay soloo nii ngay changé woo parce que parent yi su ñuy accompagner seen doom rek ci seen hygiène intime rek yenn jafe-jafe yu bari yenn loraanga yu bari dinañ ko éviter yenn feebar yi yëpp looloo koy waral bi ñuy nekk ndaw lañuy dal ba ñuy màgg mu agressé sañu andil ñu loo xamante ne lor ñu ba duñu mënati am doom léegi yeneen yi mooy pilule yi nga xamante ne moom la yenn jigéen ñi jël pilule contraceptive yi ñuy tuddee maanaam pilule du lendemain yi ñoo xamante ne amuñu borom kër ay xale yu ndaw nekk seen digg jamono di jël ñii di def ay injection loolu yëpp te dañ ciy am ay cas li ñu lay wax ni réalité la jigéen ñi ñëw ngir ñu mën leen faj parce que juste après mariage un an de mariage ñu gis ne mënatuñu am doom ñuy xalaat kii amewul kyste amewul fibrome amewul mu myome lan moo ko mën a tere am doom mais suñu defee les bilans de santé évaluer on constate que ne moom da doon def méthode de contraception yi ndax loolu day dem ba maanaam ci yenn partie ci butitu njóg daam da koy tëj parce que comme planning la da day tëj appareil bi nga xam moom moom moom mooy mën a hormone yi nga xamante ne ñooy développé nga mën a jël am loolu yëpp lay lay taxawal su ko taxaw yow nga nekk ko mësta juux mosoo am doom loolu day métti. Mhm. mën na la jural beneen feebar moom lañu feebar yu bëri tey yi gàllankoor jigéen ci yooyu lay dem parce que imagine koo xamante ni chaque mois mën na utiliser pilule yi quatre fois nga koy jël di ko naan yooyu yëpp day am ay pro substance chimique di teg sa butitu ñurukaay nga gis ñu ci jëlaat itam di ci boolewaat ay injection dangay ngay gaañ sa bopp. ñenn ñi bëri 4 pour cent yëpp suñu demee ba dugg ci néegu sëy da leen di tëjati à vie duñu mën a tijjal ëmb ba faw te ñu su ñoom tam seen traitement c'est très rigoureux dañ leen di topp topp day gis ku dépassé 4 mois ak ñoom ngir rek loolu ñu mën koo setal trompe yi li xam léeg-léeg woon na ñu débouché ko ovaire règle yi di mën di ñëw normalement mu mën di yëg boppam pour mën a féconder moo tax ñun ay li ñuy proposé foofu mooy test d'ovulation yi pour nga mën a calculer diir bi nga xamante ne juróom benn fan yooyu ñuy wax ne mën nga ci jël ëmb nga mën a éviter soo xamee kañ ñu calculer la ko ba nga xam ko moo gën ngay def recours à certaines méthodes contraceptives ci koo xamante ne xale la mooy li ñuy wax rek éducation bi lu ci français éducation sexuelle bi moo manqué voilà duñ koy waxtaanee parce que da ngay gis ko xam day tàmbale gis ma xamu ci yooyu dara gis ngay xale yu bari tey yu ñu tooñ fii jël ëmb mu ngi nii di am ay doom xamuñu ñoom sa mënuñu sax maîtriser seen cycle kon nag accompagnement boobu d'abord ci famille yi lay jóge waaye juree nga jànga sa ne ko sooy gis mbaaxkat am na diir boo xamante ne soo ko sekkee ak góor mën nga cee jël ëmb diir boobu mooy période d'ovulation bi jigéen tuddee ça dépend aussi si cycle menstruel ku jigéen ndax am na cycle am su dee dafa normal douzième jour à partir du premier jour dee rek ci la ovulation bi di commencé su fekkee euh, per durée bi dafa irrégulier rek ñu am vingt huit jours am ñu am trente jours trente et ba quarante cinq jours cycle ñooñ ñëpp am nañ diir boo xamante ne à partir de premier jour bi mu gis mbaax mooy doon aussi ovulation mais loolu yëpp jàng la am na aussi ay application yu fi nekk yu jigéen bari foofu la ñuy calculer seen cycle ñoom aussi dañuy accompagner xale yu jigéen yi ci loolu loolu nag mooy mooy erreur bi ñuy def ndax suñuy calculer au période d'ovulation dañuy calculer à partir premier jour bi mu tàmbalee gis baax comme maanaam su fekkee tey la tàmbali tey mooy le onze à partir du onze lay commencer di calculer mu def le 11 12 13 14 15 16 17 maanaam ba 12 jours yu topp à partir de premier jour bi lay calculer su demee ba 12 jours yooyu douzième jour bi mooy premier de d'ovulation su dee cycle bu normal la am 28 su fekkee cycle bi dafa dépassé 28 jours dem benn à partir douzième jour bi douzième jour bi lay calculer 13 14 15 16 17 yooyu noonu espace boobu su ci sekkee góor day jël ëmb du terme au fait voilà léegi ndox boobu su demee mooy sécheresse vaginale moom la ñuy tuddee sécheresse vaginale c'est différent des pertes blanches voilà sécheresse su demee na ba ku jigéen mënatul tooy loolu am nañ traitement bi ñu tuddee les ovules de tox vaginal moom mooy gérer waat loolu raxasaat kanamam bu mu mën di tooy di yëg boppam normalement. effectivement dafa war di yëg bopp léegi su demee na ba loolu di manqué parce que dañuy def ñoom dañuy dem tànk yaa ngi dem doo tooy doo doo mën a yëg sa bopp bu baax parce que loolu mooy constat bi ñu gis ak ni ñuy traité yëpp da ngay dem naa la man loolu daf may sonal ba pare am na ñoo xam te sax da di gaañ da di gaañ ci ci ci suñ da leen di gaañ voilà day métti ci ku jigéen ki moo tax tant que liquide boobu amul rek suy seeg su nekkee en intimité day métti ci ku jigéen ki voilà loolu mooy pour faciliter intimité bi la donc loolu su ñàkkee rek ku jigéen ki day métti ci moom aussi voilà y a quelque chose ñenn ñi day dem ba ñoom du ñu sentirati dara voilà moo tax ñu leen di proposer traitement yooyu pour que mu ñuy mën di tooy souvent voilà. Mhm. Mhm. day métti. dëgg la mais mu <laughs> <laughs> loolu la waa loolu moo doon question yi ci lu jëm ci wàllu infertilité ci góor ak ci jigéen voilà am na sànq bu ma takkoon la tey man ma am infection mm-hmm. yow nga faju bu wér te man fajuwuma mm-hmm. loolu naka lay naka mbaa du la ko wàll dëgg la waaw loolu tam question bu pertinente la parce que da gis ci couple bi ku góor ki amee woon lu ñuy tuddee infection sexuellement transmissible infection boobu tànk mi ngi nekk ak jigéen dak da wàll ku jigéen ki même ku jigéen ki su demee faju faju faju moom tam jël traitement yi ba wër ku góor ki su ñëwaatee te ku góor ki tam bosam dañu day day desaat ci ñoom. donc de ngoog loolu la ñuy yaakaar mi ngi noonu nag loolu yëpp ay cause la li leen di gàllankoor ñoo ko léegi lan li may tàggatoo ak euh, suñuy cliente ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan tey mooy que ni ñu gën a euh, respecté mu ñu gën a jàpp seen bopp ci jigéen ñi ñu gën a téye seen bopp fonk seen appareil génital maanaam hygiène intime. dañ ciy insister soo gisee suñu conférence yëpp dañ cee insister ci hygiène intime muy ci jànq bi muy ci nga xamante ne dafa nekk néegu sëy surtout ki nga xamante ne dafa nekk néegu sëy parce que day gën a exposé ak ci infection yi ñu gën di toppatoo seen bopp bu baax suñu demee ba gis loo xamante ne seetlu loo xamante ne seen kanam c'est pas du tout normal nañu dem ñun bien-être corps ñoo ngi fi suñu woowee wala ñu ñëw suñu bureau dinañ leen defal des traitements d'abord defal leen ay tests d'infection accompagner leen xam lan mooy jafe-jafe mën leen fa parce que hygiène intime dafa am solo ci jigéen surtout parents yi aussi ñu gën leen ñaax parce que jamono ji lee gis nañ ni mu mel xale yu bëri xamatuñu seen bopp xamatuñu fan lañ mën a jaar ba am l'information voilà ñenn ñi dañuy rus a jóg di naan man lii moo ma dal sama kanam su ma demee hôpital ñu may xool lii ak lii ak lii lu normal la feebar fu ne la mën a dalee nit te partie bu cër bu nekk ci doomu aadama mën nga toog ba mu am benn lu la xamante ne mi la ci gànna surtout partie intime mooy kanamu jigéen di ñaax jigéen yëpp bu ñu di rusati nañuy waxtaani seeni yaay parents yi aussi di gën a waxtaan seeni doom ci seen santé intime parce que dañ leen di gën a accompagner gën leen couvrir ci yenn maladie yoo xamante ne mën la leen lor parce que infertilité ñàkk am doom bi léegi dafa bari te yenn yëpp mën nañ koo éviter ci ba nekk ndaw mu xam boppam ñu tàmm tam di dem di gëstu suñu yaram suñu wér gu yaram ñuy xool suñuy partie intime tout donc loolu laay tàggatoog ñoom di leen di waxeek ñoo ngi fi tout le temps bien-être du corps pour jigéen ñi ak pour góor ñi itam jërëjëf. toute toute l'actualité à à temps réel sur Référence TV la chaîne